mu bokk nag ci sabab yi nga xam ne yi gën a mag yoon yu gën a mag yu nit ki di jaar ngir am njëggal ak yërmande yàlla subhanahu wa taala di tuub tuub goo xamante ni tuub gu sell la tuub goo xamante ni bu ko nit ki tuubee daf koy yewanalal li nga xam ne bàkkaar daf koy yàq ci moom li yàlla waxoon ne yaa ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuuxan at tawbatu nasuux mooy tuub boo xam ne dafay réparé dafay defaraat li nga xamante ni bàkkaar daf koy yàq ci nit bu fekkee nit ki góorgóorlu na ci di tuub tuub gu mel noonu yàlla dina ko jéggal ay bàkkaaram ya mag ak ay bàkkaaram yu ndaw tuub du bàyyeeg doomu aadama lenn ci bàkkaar loolu la yàlla subhanahu wa taala dig ay jaamam ci alquran ci ne bu ñu ko tuubee jéggalu ay bàkkaar yi ñu def moom yàlla dina leen jéggal lépp waaye nañ tuub ba jamonoy tuub di di jàppandi ba tuub di jàppandi ba nit ki di nekk ci dundam ànd ak sagoom ci jamono jooju la nit ki war a góorgóorlu lu mën di tuub tuub googu nag mooy di watta naa def bàkkaar mën naa jum waaye mu dellu ca gannaaw ndax tuub li muy tekki ci cosaan mooy arruju mooy dellu gannaaw delluwaat ci sa borom rëccu la nga defoon daal di jéem a góorgóorlu def sa kéemtalaay kàttan ba loola nga bañ caa delluwaat. yonentu bi alayhi salaatu ne seen borom day dafay dëkk loxoom ngir nangu tuubu koo xam ne def ci guddi gi day dëkk loxoom di nangu tuubu koo xam ne defoon na ay ñaawteef ci bëccëg ba fajar di jot ba bët set di jot yàlla mi ngi déglu képp ko defoon ñaawteef ci bëccëg gi ndax ci guddi gi di nga ko jéggalu mu jéggal la bu bëccëgee itam mu dékk loxoom ngir nangu tuubu koo xam ne defoon nga ñaawteef ci guddi gi ba keroog jant bi di so mu ngi déglu koo xamante ni bi tuub defoon na ñaawteef ci guddi gi ndax dina tuub yàlla nangul ko ko kon yàlla ubbil na nit ñi buntu tuub moo tax yonente bi alayhi salaam waxoon ne loolu dina wéy di continuer ba keroog jant bi di fenkee fi muy soowee jant bi benn bis dinañ xëy rek di ko séentu ci penku bi mu daal di fenkee ci sowu bi loola yonente bi alayhi salaam neena ci mujjuk jamono dina xew-xew boobu dina am bis bu loolu amee ñeppay ay gëmandoo yàlla waaye neena ngëm ci jamono jooju dootul jariñ doomu aadama bu fekkente ni gëmul woon